Seneginja, mayonnaise onctueuse et délicieuse. Alib, le goût naturel du lait. Ginny Ginger, Tolé Arôme, Baobab Hightech. Diwan Décor, votre personnalité devient un style. Novotel. Full chicken rombun danan rombun nala na xol nga ko lo gis li mu sol wala yow li ci xolam sen nga ko ni mu mel wala li ko sonnal yow mo nga yek jigéen boo gis ni muy noppee noonu lay muñee jigéen boo gis daje nga yow ak àdduna am na lu koy xaar muy lu neex mbaa safaan képp kuy génn këram bu ñaanul jàmm am na ku ko koy ñaanal ndax nag dundu nit mën naa yàqu ci ay simili waaw ma maam carafe plastique bi pour lan yow tamit verre bu fi desoon daa toj de maam six carafe yëpp dafa toj waaw man de bañuma sax ku toj waaye soo tojee nga wax ma ko maa chou mini pizza wa ah hmm. wax naa la ba sonn kenn doo bugguma da naan nan naa Deglan nga bëgg Mel. su doyee nga wax ma di kese nga defee na nag lii moom lekk la naan meew bul fomp bul fomp xaara mel sa gémmiñ bi yëpp taqal ko Nan kese man xaw ma foo jëlee mal si bi yegal rek nga wax tata mam pour mu wàcceel la sa sac ñu xana bala ngay wax sa xam la ne neen xam nga lan moy importance su liggéey déedéet yoo xamoo kay gis nga auto bi nek ci bit ci buntu kër gi ni est-ce que xam ne man maa ko jënd sama bopp papa moko jënd <laughs> pour yow daal papa moo jënd lépp waa d'accord naa li ngay def rek jaañ mooy ñoo ko nga ma dem liggéey dégg ok daawadiisa saacad nga ànd ak taa maam ayca dawal ka ah ça c'est la fille à son papa mmh. xam naa ci lenn de Sénégal yëpp bu góor ñi meloon ni man coow jeex xam nga lu tax am jabar ju rafet kër gu rafet di bëggee saa su ne. yal na yàlla fal cat amiin. chéri café. waaw comme d'hab. Mhm. ah ça c'est bon. ça mais t'assois sur papa. xam nga sa yàlla moo ko naqari moom amul papa bu ko mën a fab. Hmm. ma léegi. <laughs> regarde elle est jalouse de toi tu sais pourquoi parce que maman, elle n'est pas une princesse alors que toi tu es une princesse. maman elle est très femme, non toutes deux. je vous adore. Hmm. Eh, écoute je dois y aller. non non non non, non, non chérie lan nga bëgg ma réré? Hmm. yow togg yi ci aduna yëpp togal nga ma ma Lo def <laughs> la bëgg de allez Adjana, bonne journée. ok je t'aime

su daal yow balaa ngaa mën a feebar wala dara xew dëkk ba fajar jot nga yàq sama plan yépp nii ah mais lan laay wax leneen ba noonu ngay demee noonu nii nga may tàggoo daal qu'est-ce que tu demal yoonu jàmm ak salaam lan asu ah, xanaa xamoo ne weer bi mu ngi soog fan laa koy jëlee.

Mina, fais vite. looy yónni la lan. nee na tey la deux. waaw le deux ci kër gi yow borom location bi jaabante na fii ba sonn borom bor yaa ngi ma topp yaa ngi ko ameel ay arriéré ah. yaay umpaloo ne bi ma commencé liggéey xëy na nga ma. man ci muñal la laa dëkk. waaw ñaanal ma dem. man duma la ñaanal de ndax danga doon yoot ni sàcc ku bëgg ku ko ñaanal doo yoot. yow dëj bi ma la waxoon la yow dangaa bëgg may wax di waxaat di wax di waxaat am ni li mën naa cee paas ma jaxal ci ba fi ma jëm yaay maa ngi def li ma mën ak li ma mënul waaw man maay def lu ma mënul man rek maay def lu ma mënul man maa ngi dem eh eh kaay yow yow seetu nga bi ngay génn xool nga sa bopp yow doo defar sa yaram bi nga defar sa kanam bi nga teg sa greffage nga sol say coquette boo génn nit ñi mun la xool nee na li ma sol dara nekku ci ndax chantier laa jëm liggéey ba ngoon doo sol yére xanaa doo romb ñi booy liggéey boo demee nag boo yeboo nga wutaale foofu añ fii moom dara nekku fi ba dara booloo jeex dara amu fi fini. vous allez, allez, allez. Chut, voilà. Pleure pas, chérie, c'est fini. c'est fini, mon cœur. Amina sort. Sors et prends le sac de bébé. Amina, sors. Amina le sac. Allez, viens, mon cœur, c'est fini. allez, viens, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Ne pleure pas. Non, désolé, c'est fini. Donne-moi ça. Allez, viens, vite. Je m'en amour. Hmm, moi aussi, tu me manques. de. Hmm. Non, pourtant, me liguer ça, Non, non, non, me liguer, Si ça me dirait de te rejoindre à la maison pour une partie de plaisir. Hmm. C'est une question ou bien une invitation Je ne de rek no bul ma jël bàyyil ma def samay fen ñëw d'accord attends-moi à la aussi je t'aime hmm. foo nekk ñëwul léegi ak Noura si boutique bi. salaamaaleykum. waaleykum salaam. yéen moom bëri ngeen bruit di xanaa yaawoo ngeen. ah oo oh. ñun kay tim ñaareel lañu. man de moom jëkkëru jàmbur laa yor di ko yóbbu septième ciel foofu toj. waaye lu tax ngeen mën sàcc jëkkëru jàmbur. déggal déggal déggal waaye tataay ban tim nga bokk sax. ii dafa safa laaj man xanaa aw buuru këram. ii waay loolu neex na. <laughs> ah mère yow kon da ngaa mujj. mujj tuuf ma la. ii yow man sama jëkkër.

Damiwu dal dara dara dal la ngay manière nii da sama bir mooy métti biir buy métti maram yow de da nga bëri feem chaque jour ak feebar bu sa day métti suba so ñëwee nga ne ma sa day métti ginnaaw suba so ñëwee sa tànk mooy métti maram sois sérieuse un peu aussi s'il te plaît ah non mais non faut arrêter ça Jalika kay jadi kii nee na ah ah Uy. Ah. Ah. Uy, ça m'en est. Tu as quoi, mon bébé Sama bébé mama daanelaat. Encore Jalika, dama bëgg nga jël ma sa kii nga yóbbu ko mu ñibbi. Mais man j'ai pas amené ma voiture. jëlal ay caabi Où est ton sac Attends. C'est bon, tu as tout, hein Allez, prends un peu sur moi. Ah ça Doucement. Ton dos. Ça fait autant mal. Je te jure que ça fait mal. Il faudrait que tu ailles voir un vrai médecin. ça c'est Mon bébé de médecin. fais la pharmacie Je dem di jaay ma Non, dama c'est non. yomb. massa ça, écoute, Voilà. Ah. doucement, ça va Prends un puits. Ah. C'est tellement mal. Ça va Doucement. Bon, une fois en bas, je vais récupérer ta voiture et je te retrouve devant. Djali, attends. Laisse-moi prendre un taxi, c'est mieux. Pourquoi Madiane Tu as oublié qu'on devait remettre le dossier Taïtek boss. En plus, dossier Bobo Nono mes promotions. Écoute, de toute façon, j'ai déjà fait la présentation. L'indem, on lui remet ça après je rentre chez moi. Tu es sûre que c'est si urgent Mais bien sûr. Nos deux carrières en dépendent. Et en plus, on a besoin de cet argent. Et surtout toi. Tu n'as pas tort, hein Mais bon, on, fera une chose. Je vais lui donner le dossier et je lui dirai que tu n'allais pas bien. Mais je te ramène d'abord. Djali, tu penses que tu peux m'amener et revenir à temps Écoute, laisse-moi rentrer seule, je, vais bien. C'est vrai que ça risque d'être compliqué, mais... Ne t'inquiète pas pour moi. C'est ma Vous voyez, que tu me fais signe, Fais en sorte que ce dossier soit accepté. Ok D'accord. Allez, euh, allez, prends soin de toi. Hein. Tu me fais signe. Oui, oui, oui. Bisous. Allô Jali Allô, oui. nee naa la nga bàyyi di maye sept heures du matin lu xew. ban sept heures il est midi passé biram. mais Jali lu tax yeewoo ma. yee ñemewu ma ko. waaw wuyu ma. jàmm doo tàngala s'il te plaît sa yaay añ bi nekk foofu noonu si frigo bi. asu dafa xëy bàyyi te waxuma dara. eh Jali sama yaay du lekk ceeb bu ñu tàngalaat. débrouille-toi. mais na la heure añ fekk fii. waa baax na. Euh, di dina commandé livre livreur bi tu règles ça. ma jox sama numéro livreur bi wax Biram c'est bon nako je gérer sama essence auto. au moins me prévenir ma Allô. Allô. foot laa jëm ut fa sama moitié poulet te dina ànd ak frites ma taajal leen ko ma a ma sonn Nura, Sibir. eh voilà, génne ma kër gi yaa may dégg bu ma indil benn écoute écoute d'accord je gère tout. sama ndey fu ma jëm ni fu ma koy nettalee oui oui yàlla yàlla sarax ma ngir yàlla wër na yàlla bu ma génnee situation bi dootuma tëddee ci benn jëkkëru njàmbur fii laa jaay mbaar damay bàyyi jëkkër njàmbur une excuse xamuma eh, Cher. cher. topp ma sans faire de bruit.